RFM matin 7h40 Basirou gan Bassirou salam Faye Wa Il salam wa rahmatulah ya le mouvement national des cadres patriotes manam cadre yi qui ci Pastef di parti politique bi nga Ousmane Sonko jité fan yi euh, gis nañ la nga fess lol ci ciowal souf sa am ca euh fele ci boori sinja ki tan ci tumal euh homme d'affaires bi di babakar Ngom mi mom Sedima ci ne dafa jël suufu baykat ya euh ci lo xamni awul ci yoon mom nak ki ne kayit ne ci anam yu aw dëppoog yoon ci la amee suuf soosa lu euh, ngeen gaddu coow ne lamu def jaadul waaw Babacar euh, maa ngi lay sant bu baax te di nuyu auditeurs RFM euh, foog naa ne mbir mi bu ñu defee li tubaab di wax genèse maanaam moom fan la jaar ba am ay kayitam ak njeexantal googu ci kayit yooyu njeexantalu kayit googu ci kayit yooyu ci béykat ya di nga xam lan moo tax ñu am lu ñu metti ba di ko naqarlu pour sénégalais yëpp dégguñu ndax Babacar mu ngi présenté. benn projet agro agrobusiness maanaam mbéy ndax agrobusiness du leneen lu dul mbéy ni sa moroomu béykat xanaa kay day fekk nga gën leen am ay moyens. bu mu ko présenté communauté ruralu Sindia à l'époque ñoom ñu délibéré dal di koy jox trois 300 hectares yoo xam ne dafa am 75 hectares yu ay béykatu ndengaleer bokk ci njagañaaw doon béy bu mu ko xamee nag ci la demee seeti leen pour wax leen ne dama bëggoon ñu bokk liggéey. ndax dama fi bëgg defar usine boo xamante ne day defar aliment ak yu demee noonu mirwaateloo leen tamit maanaam digg leen ay rang-rang ay courant ak école ak yu ni mel xam nga béykat moom mantuka rawatina séeréer yi ma xam feeg ñu ngi jàpp ne que am nañ tool yu doy pour mën a béy lu ñu dundalee seen njaboot fooyewuñu suuf ci lañ ko wax ne suñu suuf si mayuñu la ko abaluñu la ko jaayuñu la ko mu am lu mu doon bëgg a jëftanteeg ñoom ñu ne ko loolu téye ko ndax mosoo ko fi indi suñu suuf moo tax nga andi ko fi mu demaat. xam nga kon ñooñu leer na ci seen bopp ne seen suuf si joxuñu ko kenn abaluñ ko kenn jaayuñu ko kenn bu demee nag malgré loolu ñu ko wax ndax am na jegeñaale ak ñi am doole ñu siñal ko décret. defal ko bay, ba mu mujjantal ga mu am ci titre foncier delluwaat ci même béykat yu mu doon ab ab seen suuf ne leen suuf si ko am naa ci kayit foog naa ne kayit yooyu du doon loo xam te ne ñooñu dañ koy mën a nangu te loolu moo waral sukkandikoo ci loi képp euh, ku am kayitu suuf kay am nga kayitu suuf xam nga loi bi dafa am ay procédure sax yu mu teg ba ca jiitu mooy communauté rurale mi def délibération bi bu ko seeni naataango laas demee laaji ji ko bu coow la jógee le 10 mars 2020 defe ne wax dëgg yàlla man bi ma doon def délibération bi wóoruma woon ne fi ma joxe nii yépp ci sama territoire commune la la bokk première chose parce que amul délimitation yi nga xamante ne def nañ ko ci communes yi ñaareel ba mooy procédure bi nga xamante ne moom la ñuy instruire pour def immatriculation maanaam jëlee suuf domaine national yi béykat yi moom jox ko kenn nit cote pour muy béy moom tamit ne béykat yooyu doon béyee loi bi dafa ne da ngay def enquête de commodo incommodo enquête boobu lan mooy njeexintal ga c'est pour que ku xam ne suuf si ñu ngi koy waaj a joxe boo ci amee loo bañ wala loo yëkkati comme coow nga teel ko yëkkati ñu am nuñ ko régler wala ñu bàyyi ko sax enquête boobu au lieu que waa service domaine dem ba ca Ndingler yëgle yëg yëgal leen ne seen suuf ñu ngi koy waaja joxe dañu ko dem bind ci benn papier boo xamante ne mosuñu ko wone wax ne papiye bii ko bu ñu toogee ba diir te kenn waxul dara day mel ne suuf si kenn moomu ko xam nga ne baykat yi nekk ci alum njagañaaw boo yaakaaree ñu dem di la seetal journal d'annonce légal wala beneen journal ba mu mënti doon pour liiral la ko gis ne ñoom la ñuy wax xam nga ne yow yaa ngi def loo xamante ne leer na leer leer ne duñ ko mos a waaye tam waaw ma baye Youssouf euh, Youssouf Bodian pour ah, ces questions. wax nga ni am am fay ci ci procédure bi est-ce que lolu euh, doyna pour mën annuler kay ci yi nga xamanteni mom moom nako wax ni dafa am léegi titre foncier. Man dama taxawul sax ci euh, faille procédural parce que bo xolé nit ñi dañu demul sax ci walu yoon. Hmm. ndax béykat yi bu ñu envisager lolu dañu wax ni kenn ko xamanteni ne ñëw na fekk la sa dëkk. Hmm. nee la dama bëgg ñu and liggéey ci say tool hmm. nga ne ko bëgguma ànd ak yow liggéey ndax lii laa yaakaar pour dundalee sama njaboot wax la ne joxu la abalu la mayu la jaayu la tamit kooku mu dem wër wëraat ba am kayit ci sa tool yooyu ñëwaat di la wax ne mënuloo mënatoo fi dugg ndax sa sa sa sama tool la kooku boo ko yóbbee ci yoon tamit du mu ci fenn loolu la béykat yi wax. Mm-hmm. donc man au lieu sax may taxaw ci mbirumu euh, mbirum yoon wala mbirum annulation kayit. Mm-hmm. dama bëgg Sénégalais yi xam ne que loolu noonu suuf soo ñu jël te ñeent fukki njaboot moom ko bu ñu ko jëlee ci ñoom dañu leen di rey ndànk ndànk maanaam xiifal leen ba ñu dee. moo tax tranché yi nga xamante ne Babacar gas na ko pour tere béykat yooyu ak seeni jur ñu egg ci seen tool yi dafa mel ni rek seeni bàmmeel la ñu lañ fa gas. man ay fosse commune la may jox ay charnier la may jox parce que yàgg yàgg yàgg ñooñu amat bu ñu amatulee lu ñu dund dee rek lay mujje nit bu lekkulee day dee. Mhm. foofu yaatuwul yaagoo xam ni euh, mënees naa trouver euh, am yeneen yeneen i pexe ndax kii nga xam ne moom ngeen di joxoñ di Babacar Ngom moom it euh, taxawaayam ci réew mi ci wàllu koom nu ngeen koy def société yi mu sànc ay doomu Sénégal di ci liggéey koomuk Sénégal di ci jëlee njëriñ itam loolu sóoraale wu leen ko ci seen àtteem. li ma jàpp mooy loolu lu ko yàlla wërsëgal la te di ko ñaanal yàlla gan ko ko fulal. waaye yàgg na am loolu ngay wax noonu te fekk na suufas ne ngeleer bokku ci kon mën na tey ci loolu sax fekk ne su du mësa a laal suufay béykat yi ndax bu ñu jëlee sax superficie maanaam li nga xamante ne moom lañ ko jox suuf si ngay wax ne ndax yaatuwam yaatuwul suuf soosu bu fekkee ne Babacar bàyyi na 75 hectares yi ko béykatu ndengaleer yi di bañal dina dese 150 hectares kon bu dee yaatuwaayu suuf rek lu muy dese bëri na lool macha allah kon bu fekkee ne am na kuy bàyyi moom mooy bàyyi mais nag li sénégalais yi war a xam mooy bu fekkee ne Babacar jàpp na modèle la te sénégalais yi jàppee ko modèle la na taxawee modèle boobu. te model bi du réussite économique rek waaye yërmande la ci néew gi doole yi nga xamante ne yaa leen war a dimbale boo leen mënulee dimbale nga bàyyee leen ñoom lu ñu moom. amul nag benn modèle de réussite sociale bu mën a tax nit am sañ-sañ ci réew tooñ foqati li baadoole yi moom def lu la neex. ba daanaka xiifal ay nit ba ñu dee loolu moom amul benn modèle de réussite boo xamante ne jox na nit droit ci réew mi pour mu am ko.

mën na am nag yeneen piste ba yu am wala sax ñu gën bi ci njëkk mooy agro business bi donte mënuñu ko bàyyi. Hmm. ne dool duñ ko duñ ko mës a def nañu xool ñi nga xamante ne ñoo moom suuf si di ressource principal bi parce que nit bu bëggee béy bu du béy ci géej du béy ci ngelaw ci suuf rek la mën a béy. kon ki am suuf si moo am ressource principal bi mënuloo ñëw comme ni Babacar dafay ñëw xëy rek def say papier ne leen moomatoo leen fi dara tegoo dërëm seen loxo. Mhm. bàyyi leen nag pour ñu dee ji ci xay xiif lu tax mënul nangu. que fu la joxé 225 hectares ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon seen maam yi jëloon semmiñ garab par garab di gor ba am fi nga xamante ne mën nañ fa béy tey ñu nekk fa ñoom seen bopp di béy lu ëpp cent téeméeri at. nga ñëw rek xëy na leen dara te ñu am ressource bi lu tax yow doo jël 75 quinze pour cent ñoom ñu jël 25 pour cent benn option. deuxième option mooy boo jàppee ne foog foog rek nga am titre foncier pour sécuriser sa investissement mais béykat yi. nekk nañ fa cent ans gor di béy di yaakaar ko pour dund amu ci kenn koo xamante ne tey boo waxee defal ma titre yu ñu defal la titre foncier mm. lu tax duñ def ay boo réeroo pour béykat yi tamit am papier ba ku ñëw ñu mën a bokk ak yow jox la mën nañ la louer cinquante ans dix cinquante ans quatre-vingt-dix ans yéen a xam mm-hmm. ci ngay fay hectare bu nekk li nga xamante ne moom la ñuy téye pour mën ci dund parce que faut que ñu dund mm-hmm. deuxième option bi mooy état ci boppam bañ a nekk état bu injuste maanaam di summi pôle di solal gens. parce que summi pôle solal gens mooy ay nit di béy ak seeni moyen ñëwuloo bënal leen forage pour ñu am ndox parce que ñeme nañ coono lool dañuy xaar rek yàlla taw te li ñuy xaaree yàlla mu taw yëpp ñàkk ndox la bënuloo forage organiser leen encadrer leen pour ñu am ay ay ay exploitation familiale. bu ci nekk nga ne ko man zone bii lii laa bëgg ngeen béy boole leen ak i ingénieur kon bu ñu ko defoon léegi duñu am problème mu lekk Sénégal. Mhm. mais au lieu nga def loolu dangay jël seen suuf ne ko yéen amu leen kattan amu leen li euh, euh, xam-xam bu ngeen mën a béyee. ne ko foppet ci ñoom mhm. dem jël ko benn nit soo benn nit bàyyi ñeent fukki njaboot yoo xamante ne yaakaaruñu dara lu dul loolu mhm. te pendant que mu ngi def loolu boo demee ci même village bi ab tubaab ak jabaram yu xonq cur santuñu Ngom santuñu fay reins lañ sant Roland reins ak Gingé Reims ci seen association cœur et mains liés ñoo fa état dafa bàyyi village bi ba ñooñu buñ ñu ñëwee ñoo leen tabaxal école tabaxal leen logement euh, classe euh, enseignants yi tabaxal leen poste de santé may leen ambulance tabaxal leen boutique def ci marchandise à hauteur de huit mille may leen moulin à mille ba pare wax ni moom Ngom mi jëmut foofa mais justement ñee ñu fa def buñ koy def jëluñu jëluñu waa Ndingler benn centimètre carré benn centimètre carré ngoom nag dafa ñëw laaj leen ñu bañ mu diggee deful ba pare foqati li nga xamante ne moom la ñu mujjee am jaare ko ci ay kayit ak jegiñaale bu mu am ak ñi nga xamante ne ñoo ko mën a signal décret wala ñu defal ko bàyyam ba mu sotti. nu ngeen gisee yéen waa Pastef ñi nga xam ni tam ñoom dañuy wax ni suuf sàngam ñun ñoo ko moom waaye lu suuf say yaa yëpp duñ ko exploité. xam nga nit boo amee propriété ci suuf lu la ci neex def bëri na Dakar fii ay terrain yoo xam ne ay nit ko moom tabaxuñ ci dara te logement loyer ngi. inspecteur des impôts et domaines nga xam nga ni loolu am na lu ci loi wax itam. lan la ci boo moo boo moomee buñ la joxee suuf euh, ci yenn anam yi boo toogee diir defoo ci dara état sax am na sañ-sañu jëlat ko du noonu. non dafa am procédure ça dépend bu fekkee na suuf si am nga ci kayit bu la neexee nga bàyyi ko foofu diir yi la neex. am na suuf yu am na terrain yoo xamante ne ñu ngi fi dakaar bi dakaar doonee dakaar ba léegi ñu ngi fi kenn tabaxu ko malgré le fait que nit ñaa ngi bëgg a dee ak loyer yi nit ñaa ngi daw dangi te amu dang daw di dang dangi amuñu fu ñu dëkk te kenn jëlul seen terrain benn. ñaareel bi mooy bu fekkee ne suufas béykat la suuf soo suufas domaine national la ku ko occupé dañ ko ko affecté bés boo ko bëggee jël ci moom dafa am procédure désaffectation d'abord laata nga koy jël. mais doo wiiri wër leen ndomb jël seen suuf ba pare après ñëw di leen wax ne am naa titre foncier gas say tranché Eh, est-ce que tey ci wàllum yoon est-ce que béykat yi tey nekk foofu notamment Ndingler am na ñu chance pour peut-être mën a am procédure boo xamante ne mën nañu leen delloo li ñu moom. déggoo li ma la wax. Hmm. ñooñu amuñu ci loolu sax yaakaar bëgguñ ñemewuñ ko def. benn hmm. parce que nee nañu koo xam dafay ñëw laaj la sa suuf nga bañ mu wër la ba am suuf am kayit sa kaw. Hmm. ba di la dàq ci sa suuf boo ko yóbboo ci yoon xaw ma ban yaakaar nga ci mën a am muy benn. deuxièmement ku xam procès xam ne lu mën a yàgg la. ku xam procès xam na xaalis a koy def. ndax ay avocat la ay procédure la ak lu yàgg yàgg yàgg mais loolu boo ci boo nekkee baykat bu amul loo lekk. Mm. soo bu ci moom ak ak en face en un homme d'affaires qui est puissant yaakaar nga ne mën nga ci génnee noonu non. mais est-ce que mën nañ topp ñi nga xamante ne au moins parce que waa doome nag yooyu wax wax nga ko sànq ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ñooy joxe yëf yi est fekkee ne am na ñoo xamante ne waroon nañ def seen liggéey te defuñu ko mu waree est-ce que béykat yi aussi mën nañ leen topp non béykat yi hmm. topp diw ma ak topp ma Demba parce que defuñu seen liggéey nu mu waree wala hmm. boog mënoon nañ ko defee ci nu mu gën a rafetee du seen ite seen ite mooy mbir maa ngi waaj a taw seen suuf si mënatuñ ci dugg parce que Babacar gas na ci ay tranchées hmm. muy nuroog seen i bàmmeel ñoom ñëpp te ñoom bu ñu fa demee forcé police lañ gendarmerie lañu leen di àndil bàyyi leen fa. Hmm. ba am na fi temps yoo xamante ne dañu leen tëdd ñett fan ci kaso juste parce que ñëwoon nañ góob si li nga xamante ne moom ñoom ñoo ko béy. Hmm. béykat yi fu mu toll nii ku ne ku ku nar a béy xam lan mooy mbéy xam nga ni ji jot na dem nañu xëccoo forcé ba ji. Hmm. Babacar awale fa ay tracteur am dina lu ñu ji donc bu fekkee ne solution dañ koy ut solution immédiate bi mooy nañu bàyyi béykat yi. ñu béy mhm. et ñu delloo suufas jàmbur dese cent cinquante hectares yoo xamante ne lu lu ko fa neex mu bàyyi ay nit ñoo xamante ne moom loolu lañu yaakaar pour dund. ministre urbanisme euh, Abdou Karim Fofana dégg nañ ko démb ci RFM mu ni dina ci jéem a doxi tànki jàmm euh, dalal ñi nga xam ni ñooy werante ci loola muy waa dëkk baak euh, homme d'affaires bi di Babacar Ngom waaye nee na itam ñu bañ ci demee émotion ndax xam naa yéen lay joxoon yi ñuy ŋàññ jël micro caméra teg ko baykat ya ñu bënn seeni bët. ngir mën a xëy na dawloo yaram yi te ci loo xam ni xëy na meneen pexe lañ ci waroon def noo gisee loola. Euh, foog naa ne Sénégal yi nga xamante ni sensible nañu ci mbirum Ndingler li yëkkati seen xol mooy noo jaay doole gi ci nekk ak ñàkkum yërmande gi ci nekk loolu du tiimal caméra du leneen. tànk yu mu ciy dox nag dañ koy rafetlu bu fekkee ne mën na mujjee ci solution boo xamante ne solution bu juste la. te man solution bu juste bi mu gis mooy nit ki nga xamante ne dafa jaay doole ba jël yëfu ku néew doole gi te loo kooku yaakaar noo loolu kese pour dund solution bu juste mooy nga delloo ko lu mu moom. parce que gisuma lan moo war a mën a tax ñu gën di dooleel ñi nga xamante ni yàlla dara jaal na leen ci alal lu doy ci seen giiru dund ba pare di lor ay doomu aadama yoo xamante ne kenn dimbalewu leen kenn xetalewu leen ci seen ndóol ak seen ñàkk gu ñu nekk gouvernement bi nag. ay ñaari impératif lay gérer certe mais foog naa ne justice sociale bu ko sàgganee dinañ fa fore ay néew te loolu lañ war a moytu. Euh, justement yéen ci wàllum bay moomu la ñuy wax ngeen lancé euh, vacances agricoles yi fan ngeen ci toll. alhamdulilah parce que hmm. li ñu bëggoon sénégalais yi euh, bàyyi bàyyi xel mooy hmm. njëriñ li ñu suuf mën a àndal ñu jàpp ne que suuf si wërsëg la bi nga xamante ne du dëkk yëpp a ko am. Hmm. ñu yaatoo ni Euh, ba pare nekk ci relief bu plat nga am benn pluviométrie bi am aussi chance am ndox mi nga xamante ne mën nga ko bënee ci suuf mhm. bi ñu wootee ci ñi nga xamante ne bokk nañ ci ñun ak ay sénégalais yu bëri yoo xamante ne bokkuñu ci ñun waaye bokk nañ ak ñun gis-gis wala ñu ngi woon yore ay projet di xool naka la ñuy def ba mu sotti ñëw nañ jege suñu fu mu toll nii ci boo demee ci coordination départementale yi ak ci ay communes yu bëri li fa amul woon daaw am na ren maanaam ay tooli Pastef yoo xamante ne ay ndaw yu dul béy ñoo ko commencé eh, jëmal te fas yéene ko béy mm. te lu ñu nar a béy Sénégal lañ ko nar a lekkee kon nu mu tuuti tuuti dinañ am loo xamante ne dinañ ko contribuer ci auto suffisance alimentaire ak sécurité alimentaire fii ci Sénégal. Mm. te loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu bëgg di gën di jëfee ci suñu opposition maanaam à partir de l' dont donte yoruloo budget donte nekkuloo responsable politique publique nga commencé impulser dynamique yoo xamante ne day andi solution. don de sang bi nga xamante ne def nañ ko fi banque yi sang yi ñàkkee woon deret ba jaaxle ndax koor gi ñu génne woon ak Covid bi. Mm. fan yi foog naa ne bu ñu évaluaté dinañ nekk ci lu jege euh, ñeenti téeméeri junni euh, ci euh, ci ay ci ay poche de sang yi nga xamante ne maye nañ ko te jeexagul ndax mu ngi continuer ba ci biir mois de juillet. ci ci ci mbay boobu ngay wax yan xeetu suuf yan yan benn modèle ngeen am pour acquisition notamment suuf yi ngeen di exploiter. fu mu nekk nii nag jënduñu. Hmm. ñoo abal maanaam mise à disposition temporelle. Hmm. pour at bi bu demee ba mu weesu. ñu demaat ci ci ci ci même béykat yi wala ci yeneen béykat foog naan sax tey lu ñu tegagum suñu loxo ci ay hectare suuf yi nga xamante ne buñ ko béyul kenn du ko béy parce que seeni borom peut-être ci at yooyu kenn fas ci ñaata la toll ci li ngeen amagum ci bu ñu mujjee defee les dernières évaluations foog naa ne waroon nañu nekk à plus de trois cent hectares yi nga xamante ne ñooñ dañ ñoo contacter au niveau central wax ñu ko waaye bokkul ak li nga xamante ne coordination spontanément lañ wala commu section communale spontanément lañ ko dem lijjanti ci seen bërëb bi ñu dëkk. ba hmm. commencé ko ji mais nañ def incha allah inventaire bi. seen seen doxalin ak seen taxawaay mel nii parti bu jël nguur gi. jëlagu leen dara ba pare mel ni daal euh, fi ñu toll nii falu ngeen. responsabilité la rek ak euh, am pas-pas gu yaa ci dugal sa loxo ci ni réew mi war a doxee. ci li nga xamantene lu gën la foog naa ne ay proposition am na critique am na mais proposition nga xamantene mën nañ ko mettre en œuvre yépp duñ ci xaar nguur hmm. parce que ñun li ñuy njëkk laaj suñu bopp mooy li nguur gi def pour waa dëkk bi ñun lan lañ war a mën a def pour pour dëkk bi nga xamantene ne moom moo ñoo hmm. pour suñu dëkkam jërëjëf Basirou Diomaye Faye moo jiite cadre yu Pastef di parti Ousmane Sonko jaajëf